daje bi lu ko waral mooy dafa am benn étude saytu euh, bu ñu defoon en 2020 euh, si ministère de l'urbanisme pour xool euh, naka la ñuy saytoo genre par exemple notamment mooy genre mooy nan la ñuy mën a xoolee natt ji tollu tolluwaay jigéen ñi ak góor ñi si biir ministère bi par rapport ak projet yi nga xam ne ñu ngi koy dérouler si biir xool ministère bi naka la naka la nekk di di di di di doxalee euh, ci ci promotion genre bi euh, dans au niveau de de ces différents euh, projet résultats yi ñu gis que mën nañ jàpp ne mën nañ si am yaakaar waaw mën nañ gën a am yaakaar. parce que gis nañ ni ministre suñu ministre vraiment depuis bi mu fi nekkee ba tey gis nañ ni jigéen ñi yëg nañ seen bopp jigéen ñi yëg nañ seen bopp góor ñi yëg nañ seen bopp ndaw yi tamit yëg nañ seen bopp parce que tey jii jël jeune bu mel ni man nommé ko coordonnatrice loolu c'est une honneur pour la jeunesse sénégalaise je may may wax nag sama moroomu jeunes yi ñu gën a yokk góorgóorlu formé wu ji gën a jàng parce que loolu moom ñuy permettre ëllëg ñu mën a assurer relève bi euh, mën a mën a amal njëriñ suñu dëkk boo jàppee ko lu mel ni projet 100000 logements tey jii projet la boo xam ne dañu ñëw pour yombalal nit ñi ñu mën a am ay kër te projet boobu bàyyiñu kenn. muy góor muy jigéen comme ni ma ko waxee sànq ñëpp ñu ngi ci biir seetlu nañ ne nag ci ci suñu réew jigéen ñi dañoo xaw a néew doole waaye yooyu yëpp jël nañ ci ay matuwaay à travers le fonds pour l'habitat social pour accompagner jigéen ñi permettre leen ñu gën a gis seen bopp ñu gën a euh, bokk xam nga boole leen ci ñëpp parce que su xam nañ ni góor muy jigéen kër ñëpp a ko soxla. maat nañ tam beneen projet boo xam ne muy tudd Promoged Euh, projet de la gestion intégrée de l'économie des déchets solides Bobu tamit projet la bo c'est pour autonomisation de la femme projet bi mo ngi basé au niveau de la décharge de Mbeubeuss xam ni décharge de Mbeubeuss auparavant décharge sauvage mais dañuy jéem réhabiliter ko rénover ko Biñ fa démé nak jigen yañ fa fekkone ñi daan daan seen doole foofu nekkoon si ay conditions yu xamante ne yu jafe la ne jéem nañ leen dimbali dote leen ay matériel tamit jéem a xool si liggéey bu ñuy def foofu noonu naka la ñuy def ba am ci ay revenu yoo xamante ne dina leen mën a jàppale ñu mën ci jàppale seen njaboot ba ëllëg si biir ñu mën a dem ba mën a am ay kër ak leneen ak leneen loo xam ne dinañ si mën a suturloo